mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal bu baax ci seen ànd ak ñun ci rajo Rewmi FM dimanche bu jot nag nii lañ koy defee rek ci rajo Rewmi FM ni ki tey nag ñu ngi am gan gu ci biir émission bi mooy ki nga xam ni moom moo di Pape Seydou Dianko mu di bokk moomeel bu commune bu Toubacouta ñu am mbégte lool di ko dalal ci émission bi di gox bi monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci biir émission gox bi ci rajo Rewmi merci monsieur Mbemba maa ngi lay nuyu di nuyu waa Rewmi FM yëpp ak auditeurs ak auditrices yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu di sant di la gërëm ci invitation bi nga ma defal di ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla dimbale wax ñu ñu dégg li nga xam lañ bëgg a wax te doomu Adama Ndiaye mbotul communication dafa sori mm-hmm. yàlla nañu yàlla may xel te ñu suñu xol mm-hmm. lu ñuy wax loo xam nit ñi dañ ko dul dégg. ok am na solo alors monsieur le maire dañ koy daal di dooree rek ci li nga xam ni moom moo jëm ci mbirum euh, redécoupage bi nga xam ni ñu ngi koy wax ñu ci bari euh, jàpp nañ nii di ni mel. anam gi mu ñëwee ñu ci bari àndu ñu si naam dëkkoo ci biir euh, euh, région bu Ndakaaru waaye itam projet la boo xam ne monsieur le ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum bokk moomeel lii itam moo ko daal di proposé sa xalaat d'abord ci li nga xam ne moom moo jëm ci projet redécoupage bi nga xam ni ñu ngi koy wax. découpage c'est pas une première jëpp boo xoolee Sénégal avant moom indépendance ñeenti commune moo fi amoon y avait Saint-Louis Tëngéej Gorée hmm. boo xoolee Sénégal sept tey on est à réew mu ñëw ak régime bu ñëw da nga xool sa développement. ak noo ko gisee. ak boole ko Sénégal day màgg dëkk yi dañuy màgg. infrastructure yi dañuy yokk. ñaa ngi bëgg ay lycée de proximité bëgg ay CM de proximité. loolu nag boo amee ay infrastructures yoo xam ne ils ont digne de seen nom dafay laaj autonomisation yi nga xam ne askan nañ ko soxla. kenn ku ne la la waroon mu jege la. man découpage bi compte woo ko parce que maa ngi koy demoon Tamba commune. ah tey boo xoolee Toubacouta c' commune qui fait cinquante deux villages et sept hameaux. Mmh. avec une population de quarante deux mille cinq cent habitants. Mmh. am na ñoo xam ne tey boo xoolee yow intérêt ak potentiel bi nga xam ne moom ngay am pour sa mairie. Mmh. am na ñooy lor parce que il y sens yoo xam ne pour ñu accessibilité fi ne ci au lycée de Toubacouta dans les dafa métti pour ñu am déclaration bu état civil dafa métti parce que dañu jóge au fond de la ñooñu soxla nañ attan nañu dem commune. nga boole ak jub bi dañ ak bosi ak ci nag. ñun demande nañ ko président d' accord na ci ak ñun. conseil bi def na délibération def nañ étude ci itam commune bi. à cent pour cent parce que bi ñuy wootee délibération bi kenn opposé wu donc demande bu yàgg la woon. donc accepte nañ ko pour def ko. pour la commune de Toubacouta en deux parties. donc mënuma ko bugg sama commune. bañ ko ci keneen. parce que contexte bien vrai que bokkul. mais Sénégal tamit xam ne dañu màgg. soo déggee dañuy département Kër Massar. tey département bu bëri bu ñu amee c' est am na dëkk yu bëri yu ëpp seen département. ak popularité ba nga xam ne moo fa am ak investissement nga xam loo gis nañ ko def bu ne nañ ko waxtaanee moo ko. mais coow li bëri na dafay wuy. kenn avancé wu leen non. surtout maire yi nga xam ne yéen bokk nañ euh, ak euh, camp ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci pouvoir bi naam am na ci ay opposition mais am na ñoo xam ne ñu ngi ci pouvoir bi jàpp nañ ni projet bi dafa ñëw pour gaañ leen. waaw mais projet bu ñëw am na ku muy gaañ mais am na ku muy defar soo xool découpage bi nga xam ne moom la fi mën a def ak temps parti bi nga fi jógee régime bi fi jógee y avait beaucoup de communes ko sende mais communauté am nañ seen ay doom ñu nekk ay maire communauté am nañ seen administration ñu jege leen te ok lañ ko doon bañ. Quand Wade le faisait coow bi bëriwul na Sénégal mais tey ña fa dëkk ñooy fal seen doomu gox mais découpage bi tam bu amee ña fa dëkk ñooy fal seen doomu gox donc àdduna mënut a bindoonu découpage bi nga xamante ne dafa amoon au niveau de Sangalkam ku ne xamoon na ko la fa xam-xam nga ko loolu nag bu fekkee dañ ne dañuy réparer injustice mais le ministre Omar Gueye il était victime de ça xam na bu baax loolu kon yaakaar naa su koy def dina ko def ak conscience bu tranquille loo xamante ni dina mën a équilibré. mais ñenn ñi dañuy jàpp ni moom maanaam dafay joxe dogal ba pare di àtteel boppam te li mu cërale boppam itam moo gën a bëri. waaw mais xam nga nag loolu moom. il et partie. li nga xam ne moom la mën mënul nekk juge et partie. il peut être partie parce que le seul présent c'est qui qui signe le décret. moom il n'a qu'à faire la proposition. mais c'est le seul présent mooy juge bi. parce que lu mu mun a def. te président entériné ko mën jàll. Omar Gueye c'est un ministre de la République. il a des limites c'est le président qui signe les décrets hmm. loolu tam bu leen ko parce que c'est pas Amar Gueye hmm. mooy signer communalisation hmm. communalisation décret présidentiel boo ko yóbbu donc nag loolu tey bu fekkee dafa am moom munu ci lenn lan mën a def mooy proposition teg ko ci table président de la République le président qui doit c'est le président qui doit signer le décret waaw naam euh, euh, décret la président moom moo ko war a joxe itam est-ce que yaa ngi koy junj sànq mënuñu xool waxtaan ba jiboo ñu daal di koy teg comme ça ñu waxtaanee ko. mais li ma la wax man Pape Ndiango dama leen noo ko dañ ko def bu ne. dañ ko waxtaanee noo ko ko jiitu. on est en ñi am seen xalaat. am seen idée. looy def ci kaw taabal ngeen teg ko ngeen partage la fa xew nag man xaw ma. dafa jàpp ni projet bi projet bu baax la. waaw mais man découpé ma la mënu ma nangu ñu découpé ma man daa maa ko bi. ma bañ ko keneen. c'est le contraire. man xool naa bi xam ne sama population ñu ngi loru. ci terme de popularité. ak dimension boo xam ne sama commune dans de Fatick maa ça fait quarante deux mille cinq cent habi deux cent cinquante habitants cinquante deux villages et sept hameaux ko nga parcourir campagne sax dafa métti nga xool demande sociale bi nga xam te moom mooy war a jëm si yow bu ñu ko séenee en deux parties man toutes les façons je suis maire suba damay quitté mais dinaa may sens ñeneen génération buy ñëw suba te da ngaa ngi jàppale askan wi nga xam ni des fois dañuy faral di wuti këyit muy metti waaw parce que dama ba Oyaas Foire amee damay waxtaan toujours ak président tribunal bi mu jël gaal dem Bédénd parce que tey nga mën a jël ay inscrire leen nga am fa presque deux cent personnes deux cent personnes yi ku ne am témoin hmm. nga bëgg leen dugal gaal ça fait trois cent personnes donc à chaque fois bu audience forêt amee damay négocier ñaan le président tribunal mu jël gaal déplacé dem defal la audience forêt hmm. je l'ai fait à maintes hmm. pour Bédénti parce que dëkk bu mag ay Sénégal lañ il faut xale am kayit parce que ñu jàng tey Bédénti ñu ngi bëgg fu ne pour mu am lycée digne de son parce na donc forme tey benn lycée tey am communalisation hmm. Hmm. ñoom dañu mën a def seen bopp soo xoolee la commune de Dionewar hmm. il fait trois villages il y a Niodior Dionewar et Faléa nga ñëw la commune de Bassoul c'est six villages nga ñëw la commune de Djirnda c'est neuf ou dix villages donc ñooñu beneen di soo mooy defal ñooñu dans les îles ñu am seen autonomie boobu defal ko ba dëgg ko bëgg ñu tamit comme nag ñu ngi fi apporté moom ki ci président de la République ñaan nañ ko moom accordal ñu ko. Mhm. mais dañu bëgg ñu defal ñu commune. ok monsieur le maire est-ce que kon tey mënuñu wax euh, li nga xam ne moom moo jëm ci laaj ji acte trois de la décentralisation. acte trois de la décentralisation bu ngeen ne laaj yéen ko xam mais ñun moi je suis le dernier président de la commune de Toubacouta def naa ñaar comtes yëpp. Mhm. je suis le premier maire de la commune de Toubacouta que j'ai fait douze ans dans la commune. Mhm. commune boo xam ne sama papa dafa ci nekkoon donc xam naa comtes yi président communauté rurale. mënoo ko présenté fenn président communauté rurale boo doon Europe ne président communauté rurale. kenn du la faay. merci partenaires yi nga xam dañoo am ay financiers mais mënuñ loolu di financer ci dara tu avais que des am na yenn montant yoo xam ne mënuloo ko am. Mhm. mais léegi nag bu acte bu tuxaay ñëwee def ñu en plein exercice nga nekk maire plein. Mhm. officier d'état civil daaw ñu ko signé. il est dans les sous-préfectures mais naissance ñun xam ñëpp loolu yëpp acte tuxaay bi mais ak tubaab bi la jul parce que ñu ko ñu koy wax dañ ko dundul mais ñun ñu nekk ci dans les mers. nga ne la. bu baax te dafa yombal askan bi. man nit nit mun na ñëw sama kër. Mhm. ma signé ko certificat de résidence. te mun na ko si préfet. nit mun na ñëw tey am examen am concours. ñëw dimanche sax ñu defal la extrait de naissance ma andi la parce que damay xam ne kii dafa bokk samay administré. Mhm. bunt damay dem noppalu ji. parce que du liggéey fi kenn. donc loolu it ak tubaab bi dañu ko mhm. ay maire plein. Mhm. amatul ay maire de ville ak ay président comité rural. autant boo ñun association des présidents d' mhm. doon dajoon ak maire yi sax da ngay foog dañuy sous-estimer. loolu it ak tubaab bi di déglu. am na ci daal. mu mag non seulement facilité mais boo ñëwee tey fi ne nii tey ci fast track. président wax ko. man quand j' étais venu dans la commune de Toubacouta sur les cinquante deux villages six villages laa fekkoon ñu électrification. yow kay loolu dinañ ci ñëw jarul <laughs> bul anticiper waxtaan bi dinañ ci ñëw alors monsieur le maire kon tey comme junj nga ko commune bu Toubacouta la ñuy daal di waxtaanee monsieur le maire boo ñu doon defal genèse commune bi. Mhm. maanaam xamle ko ak mbokki auditeurs yi ñuy déglu ak ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk commune bu Toubacouta lan nga ñuy wax ci commune bi defal ñu genèse bi. dama fier ci sama commune muy Toubacouta. ki nga xam ne ma accompagner jàppale ma. 2009 ak tey toutes les élections maa koy gagné avec différents partis c'est pas facile. quand j'étais ma def éducation def santé def état des lieux parce que sama compétence la woon. mais dama bëgg nga xam leen maag auditeurs yi fan mooy Toubacouta. Toubacouta mooy dëkk bi gën a naat ci région de Fatick Toubacouta mu ngi bokk ci région de Fatick bokk ci département de Foundiougne. nekk chef-lieu d'arrondissement bu composé trois communes muy la commune de Toubacouta la commune de Nioro Alassane la commune de Kër Saloum Diané la commune de Kër Samba Gueye ak la commune de Karang su dee frontière maritime bi Toubacouta moo fronté ak géej gi ak océan Atlantique su fekkee frontière terrestre bi Karang ngay jóge dugub biir Toubacouta Toubacouta mu nekk ville boo xam dafa composé trois grands hôtels les paltiviers lot ci Dafatala ak Kër Sall. Toubacouta am dix neuf campements ak cinquante résidences. mu nekk dëkk touristique. Toubacouta am ay forêt classée. lu jëm ci presque vingt sept mille ectare de forêt classée. mu nekk zone bu am environnement bu riche. Toubacouta nekk patrimoine mondial de l'UNESCO. Toubacouta nekk le plus bel pays du monde. Toubacouta bokk ci biir fer. Toubacouta. am les îles des oiseaux. Mhm. Toubacouta am juróom bu mag. am juróom bu ndaw. ok Toubacouta mhm. am patrimoine yoo xam ne tey moom la ñëpp soxla. Mhm. mooy. environnement bu sey. tourisme. agriculture. élevage. damay wax toujours. Toubacouta c'est le grenier de la région de Fatick. toutes les potentialités se regroupent à Toubacouta te tous les projets envergure yi war ñu ak président. on l'a fait à Toubacouta. c'est le seul Toubacouta dans une commune dans le Sénégal. benn mhm. dëkk bu am ñaari camp militaire. camp d'entraînement mhm. actuellement ñu ngi yor andit police. donc mu nekk dëkk boo xam xamante ni. Mhm. ñu ngi préparé CNCA moom fa ñëw di investir. am na ñetti mutuelle. am na mutuelle Baobab. am na mutuelle am na poste. am na mutuelle crédit mutuel. am na marché boo xam ne tout récemment. dañ ko tijji. Ah, monsieur le maire li nga wax yëpp am na solo vraiment gis nañ ni euh, fonk gi nga fonk dëkk bi nga xam ne moo di Toubacouta alors tey euh, yaa ngi fa waxoon yaa ngi fa waxoon ni président communauté rurale nga fa ñemee woon atum 2009 2009 ba 2014 monsieur le maire loolu àpp la ba nga fa ñëwee ba tey xar kanamu Toubacouta nan nga ko fekkee woon ak tey fan la nekk. Euh, su ma lay jugé nag du ma mën a jugé sama bopp. Ah. waaye boo ñëwoon Toubacouta xam ne changé na image. Mhm. parce que j'ai réalisé beaucoup d'infrastructures. quand je venais à Toubacouta def état des lieux cinquante huit salles de classe laa fekkoon abri provisoire de 2009 à 2013. 58 waaw. de 2009 à 2013 j'ai construit 112 salles de classe ak a 42 écoles 7 CM. 10 postes de santé amul benn abri provisoire. Mhm. léegi ci wàllum euh, éducation tey euh, yan jéego nga ci def monsieur le maire. déggoo li ma la wax salles de classe. Mhm. mais jàng bi. chaque année. Mhm. bu ñu tijji tey jàng tey fekk na seen fonds disponible na. musul tardé. benn waxtu li ma lay wax nii xëy na bu yàlla defoon ba nga ñëw Toubacouta. dama lay boori nga dem ci président CODEC bi. Mhm. dem naa ba seen examen ma dete leen photocopie boo xam ne dañ ko def di photocopie seen dossier. Mhm. éducation moom lu ma fonk la lu ma naw la. j'ai construit dix écoles yoo xam ne man maa leen collecté. ci sa gafa mairie mairie. parce que tabax naa cent douze salles de classe amatuma abri provisoire léegi dama doon clôturer tali yi. Mhm. oto yi nga xam ne dañ nekkoon école yi ne ci kaw tali yëpp dama leen clôturer. yàlla l'école de Diaklé. de mhm. Sangako. l'école de Dassilani Séré et l'école Dagba et mhm. Saboya. lépp dama leen clôturer. maanaam ci wàllum école amul lenn luñ ci mën a ndax def nga ci ay jéego. boo demee Ndumbu gëm a dëkk. maa fa créé CM. Toubacouta maa créé lycée bi loolu en 2011 Medina Sangako dama ko fekkoon mu am lycée ma leen seen école yi. amuma problème table banc amuma problème construction dans ma commune j'ai deux mhm. am na lycée français am na lycée arabe lycée arabe bi daaw laa ko créé. Mhm. donc zone la boo xamante ni tey sur le côté infrastructure je de ça. Mhm. mbirum wér-gu-yaram. xam nañ ni tey ak contexte Covid 19 bi ñu ci bari dañ naan plateau technique yi am na euh, lu ciy sooxe waaye li nga xam ni moom moo jëm ci euh, yaa ngi wax ni fukki. Euh, jumtuwaay yi nga xam ni wàllum wér-gu-yaram la am nga ko tey foofu tey ci wàllum paj mi mel na ni kon su ma la déggee am na ay avancement yi nga xam ne indi nga ko fa. bi may ñëw Toubacouta six post laa fekk en 2009. Hmm. y avait la poste de Toubacouta la poste de Némaba construite par les Américains. Hmm. la poste de Missira la poste de de Bettenty ak Némanding. Hmm. ak ndumuc kaatiman maa leen créé yàbbu sinkan cen ak yàtt ko daa silaami soose hmm. ak jagle mu fekk six muy dix hmm. actuellement sax am na ay poste ay ICP yu may toppatoo hmm. parce que dañ amoon ay mouvement ñu am ñetti postes yoo xam ne actuellement dañ leen fermé parce que seen espèce dañ ko déplacé parce que bi Covid bi amee comme gars yi dañ jël renforcement dans les structures xaw wàññi suñu personnel foofu on n'a pas ce problème même dans ma commune foo am 300 francs bu la neexee dem accéder ci poste de santé. ah bon parce que un rayon de 170 kilomètres carrés te à 10 postes de santé. paj mi yomb na foofu. amoo problème boobu. ok te dama leen ay fonds à tout moment à toute heure ni fi nangam. Mhm. dañuy euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci poste de euh, fois dañuy laaj fonds fonds yi yow sa mairie kon amul benn problème bi nga xam ne dafay tardé. bi fonds yi amee daaw ci commune bi man maa njëkk a engagé. 4 millions 900 mille francs pour appuyer sama poste de santé yi joxaat leen 5 millions pour fonds de concours yi nga xam moom état jox jox district sanitaire bu Sokone 500 mille francs sama ambulance bi paanoon nga xam ne Toubacouta maa ko dépanné jëndal ko moteur 400 mille francs rajo lay wax de. donc santé nécessité la boo xam ne kenn waru ko foyee dafa sensible. à tout moment et toute heure. donc moo tax ñun amuñ problème boobu. actuellement logement soo demee maa ko tabaxal waa pare na euh, porte salle bi boo doon porte bu ndaw ñu yokk ko kawal nañ ko penti nañ lépp fini finition yi moo ci war a des mhm. am nañ ay partenaires yoo xam ne ay partenaire suma doomu adjoint mhm. ñoo ñu tabaxal poste de santé bi bërki dem dem nañ réception bi donc installation yi moo des pour ñu tijji ko mhm. ci covid bi maa ngi la dégg nga ne ba ca fajar ngeen jóg daal di koy faggu xeex ko tey euh, ñu ngi wax vaccin Euh, ndax monsieur le maire itam fàtte woo leen itam Covid mi ngi fi est-ce que yéen a ngi ci sensibilisation bi ci mbirum vaccination bi. mais Covid dañ dépassé Sénégal fi mu waxee ay sensibilisation. léegi Sénégal àdduna bi. Mhm. am nañu ay rajo sociaux. am internet. Mhm. ba nga xam ne ku bëgg xam dana xam. xam nga quand j'ai dit des gens naan problème de sensibilisation léegi lu waay bëgg a xam xam ko xale yi juddu léegi ñoo la gën a mën a connecté tout ce qui est information ça passe minute par minute. Mhm. donc problème de sensibilisation amu fi. bi ñuy wax problème de communication mooy ay gens de soixante du soixante nga xam ne ay benn rajo moo fi amoon ay benn télé fi amoon. léegi am na ñoo xam ne dañuy jug di yàq naan vaccin yi baaxul ak ñeneen ñi di yàq xel nit ñi fekkee ne tey àddina bi. ni ko yàlla bindee. Mhm. soo nekkee ci biir nga ne baax na soo nekkul ci biti nga ne baaxul ku nekk am na da koy jàppe noonu mhm. ñi gëm ne baaxul dañ bañ a vacciné wu ñi gëm ne baax na nañ vacciné wu moi je suis le premier vacciné dans mon département bi Covid bi ñëwee mhm. ICP moom vacciné euh, euh, médecin chef moom vacciné parce que sama bakkan bi bokkuma ko kenn soo amee sa conscience na lii ñu joxe baaxul mhm. mais reste toi xam nga kenn du deel sa bopp sa morom kenn gën sa bakkan nga am <laughs> voilà l'essentiel lii ñëw moom moo xam ne dafa nekk commune bi nekk mas mi nga xam ne dafa impliqué affaire phénomène national mhm. ñu ngi ñaan yàlla ay jullit ay croyants mhm. yàlla ko yàlla que ku ne ko sant nga ko mhm. képp kuy liggéeykat rek sant nga mbas mi parce que tey ki amoon gàmmoom def ñun ay musulman lañu am na lu ñu yoon jox kon bu ñu ñëwee tey ba loolu ñu di ko moytu parce que moytu moo tax monsieur le maire wax nañu wàllum éducation wax santé wàllum infrastructure lu am solo la yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci gox ak goxaane ca kaw tey tali yeeg xàll yi. commune ba Toubacouta ndax ñoom amuñu problème yooyu. am naa ci ñaari problème yoo xamante ni maa ngi koy jooy fu ne fu ne dégg na mooy mooy la route bi nga xam ne dafa départ Toubacouta dem kër Aliou Guèye. Mhm. dem Nioro ak Santal dem Saloum Diané. c'est dix huit kilomètres. Mhm. wax naa ko fu ne parce que yoon la boo xam ne dafa impacté trois communes. muy la commune de Toubacouta. Mhm. la commune de Nioro Alassane Tall ak la commune de Kër Saalum Diané. te c'est le bassin arachidier te yoon dafa bokk ci dëkk. Mhm. yoon dafa bokk ci développement. yoon dafa andi koom-koom. Mhm. ñu ngi koy jooy di ko waxtaan. deuxième accès bi mooy la route de Missirah Toubacouta nga xam ne 86 lañ ko defoon avec Japon yi bi ñu créé centre de Missirah. on l'a dem nañ waa PDC ñëw nañ natt nañ def nañ levée yi. lépp di ren amoon nañ benn entreprise bu doon utiliser carrière bi defal nañu ay euh, maasale jàppalaa fi naan mais ñun dañu bëgg ñu ko doyul parce que looy wax day fi ne nii ba am yoon sa koom-koom yokku na looy wax wax ba ñàkk sa koom-koom wàññeeku na te Missirah dafa nekk zone bu dëkk bu am importance dans la commune de Toubacouta parce que tous les produits halieutiques ci yoon boobu la ñuy jaar muy jën muy biddanti comme Bosinkan ñëpp foofu la ñuy teer oto yi fa la ñuy jaar te dafay métti. ci askan vraiment ñu ngi ñaan état du Sénégal son excellence président Macky Sall. mu jàppale ñu ci yoon boobu. même bi mu ñuy tourné campagne bi j'ai dit ça. mais yoon de ah. mais bien mais xam ñu laaj am compétence ñu ngi jox ñu ko ñu ngi ci. dara manqué wu ci te son excellence président Macky Sall dafa jàppale la commune de Toubacouta. ñun on a des îles on avait cinq villages dans les îles. y avait Djinak Diatoko Djinak Baara Sippo Bosinka président a donné un projet man toute ma toute ma toutes mes communes dëkk bu ne am nga ndox toutes les cinquante villes na yenn yoo xam ne ñu ngi ko doon wax ci commune bi ne ndox bi yeggul euh, ba ñu naan ah, ndox bi nag mënul yegg ci kër gu nekk waaye nit ki nag bu bu la xëccalee ba ndox bi ñëw foofu yaa ko war a dem wutali sa bopp te ndox bi fu ngeen si toll. du ma tontu ci yooyu. Mhm. même village bi ma dëkk. Mhm. am na forage mais am nañ jotagoo ci ndox mi. Ndakaaru bii. Mhm. am nañu branché wu ci ndox. waaw mais ñun li ñu mën. mooy bu ñu ñëwee ci commune. dem ci dëkk. def les grandes lignes ci am hauteur cent mètres ci am hauteur cent cinquante ci am hauteur cinquante mètres. Uh-huh. mais kan moo ko war def responsabilité nit ki la. parce que ñun suñu village boo demee dëkk bu ne am nga teen. mais soo mënut a fay sa facture ndox. Uh-huh. mais doo yem ci sa teen. loolu nit ñi engrais concerne man boo demee sëgg maa ngi teen. parce que sama nag yi ak sama jur yi duñu naan ci robinet dañu naan ci teen bi pour pour diminuer ma sama économique. yooyu du affaire yoo xam ne nit mën na ci tontu. Uh-huh. dégg nga li ma la wax quand j'étais venu à Toubacouta. sur les dix cinquante deux villages. seize villages ñoo ci amoon ndox. y a que 16. Mhm. toutes les 52 villages am nañ ndox. problème ndox amatu fa léegi. jamais je le dis en haute voix. Mhm. en tant que maire de la commune. Mhm. maa koy waxal sama bopp. te ren ngay wax nii jël naa 24 millions def extension ci ndox mi. mu yegg. non dafa am ay dëkk yoo xam ne bi bi ndox mi ñëwee. dëkk bi dafa mën ay 2 3 kilomètres. tey dañuy def. daaw jël naa 21 millions. am dëkk yoo xam ne yeggu ñoon mu yebee Daasilaañ bu mag. yebee Sarouja yebee Saame yóbbu leen ndox mi. un kilomètre de l'eau ça coûte 6 tiwo bi ak gas bi raccordement bi. kon yow looy tontu collectif boobu jóg taxaw ne ñoom dañuy sàmm. Euh, défense su Toubacouta. Euh, loolee ni tontu. sama doom la. c'est mon fils. j' ai d' accord que c'est mon fils. je ne le jamais. mais les faits moo koy tontu. te fii laa koy wax. il sera jamais maire de Toubacouta. mooy kan. ki nga xam du ma ci wax. du ma ko sax tudd. te maa la ko wax ci rajo lay wax. il sera jamais maire de Toubacouta. ah ça kooku moom ñëwaguñ ci ambition personnelle yi waaye ñoom collectif la ñoom collectif bi. Mhm. ñoom Mayakor lañ ci seetlu naam bugg ko tur man man ma tudd ko. Mhm. ñoom Mayakor lañ ci seetlu woon. Mhm. ba ñuy jàpp ni ñoom dañuy xeex li nga xam ne moom moo jëm ci Toubacouta. mën a dem ci kanam ndax da jàpp ni euh, moom Mayakor rek la wala am na ñeneen ñu nekk foofu. je le premier dans la région de Fatick. ku xeex loolu. ci mesure évaluation. je le premier les communes boo xam ne le ministre Omar Gueye mooy envoyé chaque année. Mm. pour évaluation toutes les communes avec les CADL avec les sous-préfets avec les techniciens de l'ARD. sama première année ma jël deuxième on m'avait récompensé quinze millions avec un projet GIZ parce que Toubacouta était avant-garde avant que je en devenir. kon am na fu mu yegg tey. kon kon kon yaa koy waxal sa bopp. Mm-hmm. ah déet li nga wax nii kay. jël avant mm-hmm. laaj ma sama niveau intellectuel ma ñu ne naka laa mën a def ba mën a remonter cap boobu ñu ñëwaat tey ma jël premier dans la région jël vingt cinquième au niveau national les faits sont là soo bëggee ñu transmettre la lettre bi xam nga wax. Mhm. ak jëf bokkul. moi je travaille. je mhm. dama ne commune ñëw ñu fal sa mhm. mu def fa cinq nga ñëw ñu fal la douze ans yóbbu la assemblée nationale. tu as de devoir remplir nañ ko. ok donc éclairage public. treize villages laa def six laa fa fekkoon. fu mu toll tey. j'ai presque suñu bon noonu quarante pour cent ça me reste soixante pour cent jërëjëf laay di wax de mhm. du ma wax lu ma gëmul maanaam dëkk ba tey boo nee Toubacouta cëpp rek waaw lépp a ngi tàq nañ ndax ku laaj ko du man non yow lañ koy laaj ndax yow a mën a wax tey moo tax man wax ne la mhm. la santé éclairage public Missirah mhm. dem quatre-vingts lampes maa ngi war dem Sangaw continuer dem jagle on avait des mergues mergues yoo moyens yoo xamante tey. Mhm. munoo laal lépp. cinquante deux villages. Mhm. amul benn commune bu am fii cinquante deux quartiers. léegi chaque village. Mhm. bugg dara ci yow. da ngay planifié. bi nga am tey fonds de concours fonds de dotation état yi nga am suñu naan. impôts locaux yi nga am moom ngay dajale. lii fonctionnement lii investissement. boo planifié tey nga ne ah nañ jël cinq villages cette année là. deuxième village on prend les cinq village jusqu'à cinq ans mandat bi di jeex. donc ci planification boobu mën liggéey. Mhm. projet ak programme état am. Mhm. jàppale la accompagner la. Mhm. nous on a beaucoup de fermes. moi j'ai cent cinquante hectares de ferme yoo xam ne c'est clôturé gas ci ay forages def ci ay solaires. xale di ci liggéey. bu baax ak jigéen ñi. ok mbiru chômage mais ñaari chômage moo am. ki am diplôme. mën a def concours gagné. <laughs> mais bu carte sa université ñu dàq la. defuloo concours. Mhm. mënuloo def concours. nanguloo def retour au bercail. Mhm. ki nga xam ne sa papa da doon sàmm. ngeen nangu loo dem sàmm. Mhm. parce que ñu ngi université kàttu sa nga ki nga xam ne papa da doon béy ngeen nangu loo def fi ne béy tooñ sa bopp man mon père était transporteur moi transporteur digne de paysan. loolu leer na alors monsieur le maire infrastructure yi ñu ñu si bari dañuy faral di euh, beddi mbirum tàggat yaram euh, xale yi stade yi. Eh, mbirum loisir loolu lu am solo la maanaam am na ci ay jéego yi ñu ci def naam waaye fan nga ci toll. quand j'étais commune de Toubacouta coupe maire six équipes ñoo ko football. Mhm. bi mu ñëwee may loolu c'est de l'injustice ma oo xale yëpp ñu def réunion longueur de journée ma waxtaan ak waa zone bi ñu ne ñoom duñ ko accepté parce que six communes ñoo réglementé. Mhm. ñoo am licence ñoo mën a football. ma jël commune yëpp jël village yëpp. <laughs> diviser ko en cinq zones organiser ay nawetaan chaque année depuis deux mille ak tey. Hmm. toutes les nawetaan ci équipe boo xamante inscrire nga dama lay def ko maire. Hmm, ren stade municipal bi Toubacouta bi. Hmm. actuellement may wax yow am naa sama benn xarit le directeur adjoint. may na ma grille de protection vingt cinq millions. Hmm. ñu ngi koy def ba ñu paree woon ko inauguré. maa ngi négocier ak Matar pour mu defal benn tribune de cent wala cent cinquante personnes. Hmm. tey rek maa ngi jógee ci directeur infrastructure. Hmm. sport mosuñu am benn année bu ñu fa ba lu lay daan bu dul daaw commune bi. depuis douze ans mu ne amul benn village booy dugg daa ma commune bu amul jeu de maillot. képp ku inscrire rek jox nañu jeu de maillot. daj na waaw donc sport amul fi naan. amoo ci benn problème. amoo ci problème ak kenn. musuma xuloo ak ñoom ci werante ci fitna ko mhm. luñ ma mos a sollicité. Mhm. ci pare ab certainement. lépp yaa ngi koy def ngir diisoo. waaw ok monsieur le maire. Euh, li nga fi tudd yëpp 2009 ba 2014 gis nañ fi li nga def ci commune bi bëri na tey boo doon tiiree bilan ndax yow ci sa bilan bi atum 2014 ba ba si yàlla yàllay tey am nga ci mbégte wala am na loo xam ne buggoon nga ko def entour ba tey lan la. su ma toogee ma am samay conseil yor 56 conseils. Mhm. notifié ma benn lettre bu jógee ci ministre de collectivités locales. Mhm. ne ma félicité ma ne ma dans toute la région de Fatick yaa ci jël premier. jaajëfal la daal. dans tout le département yi nga xam ne seize communes yaa ci jël premier. Mhm. loolu bu mu doyul. ku liggéeyul mooy la may la liggéey moo la ko may. bien sûr parce que man damay innover du passé damay damay xalaat. Mhm. ne lii war na am ci dëkk ba ne uti ko. te loolu dama bëgg boo ñëwee nga gis. xam nga wax ci rajo yombul toog ci mais soo ñëwee moom la lay fay Toubacouta on l'entend partout festival ñoom Badia bi may def nii ça me rapporte des millions. festival lan la festival ñoom Badia chaque année ñu organiser ko bi mooy cinquième édition. Mhm. ñu dem ba bi ministère de la ko ci ci ci agenda ministère de la culture. mais loolu c'est une genre communication buy dimbali dëkk bi. Mhm. parce que dañu xool tey son excellence président Macky Sall su bëggee jàmm digganteem ak Banjul mais ñun population ñoo ko ci war a loolu culture ak sport daf ci am solo. yaa ngi ciy dox jéego. bu mag moi je suis la frontière. <laughs> j'étais le président de la gare routière de Karang depuis vingt ans. toutes les problèmes yi nga doon dégg dafa au niveau des frontières pas que tey rek laa xam loolu. Mhm. je suis un syndicaliste. j'étais secrétaire général de la région de Fatick. Mhm. ren laa démissionné au niveau de la gare donc dëkk boobu dama fa juddoo dëkk fa sama baay juddoo dëkk fa. xam ko. ku lépp lu dëkk bi soxla. Mhm. kenn du ko laaj parce que dama fa yeewoo. Mhm. moi j'ai mon passeport diplôme j'ai jamais soxla woo ko. non parce que damay bañ a faillir sama mission. Mhm. que mu ñëw foog dama war dem rek dugg ci oto yi dem ay ay France nangam mais je vais rester le Pape Niang. moo tax le maire. Ah, le 22. Euh, atum deux mille vingt atum ci la ñu war a euh, tëggaat élection locale yi. kon buñ la déggee mooy maanaam. am na mission bi nga xam ni war boo ko continuer. sama mission continuer ko ça dépend ci population bi am naa droit ambition am naa droit bëgg. <laughs> ay population la ñoo maa ngi leen di ñaan tàllal leen sama loxo ñu reconduiraat ma ndax ma continuer samay projet ah boo lan ban projet nga bëgg a tegaat seen loxo tey. balaa may bàyyi ni ma amee dëkk yëpp am dox dëkk yëpp am électrification ma taal dëkk yëpp toutes les cinquante deux villages de Toubacouta dëkk ba ne am courant suba na ma bàyyi xale yi ñu dem. <laughs> alors voilà ñun nag mënuñu jeexal parce que li nga xam ni moom moo jëm ci euh, président conseil euh, départemental bu fu euh, Foundiougne gis nañ ko ñenn ñi sax for naa ko ci weewu béy ñu ne mi ngi jël ay ndaw di leen jéem a xool yàq nu mu tegee ci commune yi ngir mun la daal xool nu muy jéem a amee doole ca commune ba mm-hmm. ndax yow loolu yaa ngi koy bàyyi xel El Hadj Moustapha Mbaye sama xarit la ñoo bokk transport sama mbëgg la ko ma respecté la. Mhm. mais maa ko mën ci politique may sëriñam. ah monsieur foo teg loolu. bu baax daf ma fekk ci terrain moom c'est un opérateur économique c'est un transporteur ñoo bokk métier man moom moom il est dans son mhm. dama ne doomu ñay kenn du ko ñaanal rëy da koy ñaanal mu gudd fan man doomu ñay laa dama ne dama ñëw fekk sama papa exercer. doon président communauté rurale. Mhm. am deux prédécesseurs ñu ñëw si ginnaawam. Mhm. moo ñu war a rapporter victoire bi. Mhm. da nga baax li ma la. député gii ma bëgg. moom da ko ma bëgg ko. ma jël ko. sama xarit na jëmee ko may toog fii di di personnaliser débat. li ma laaj ci sama développement je suis très content. mais dama la ne kooku maa ko mën ci politique. je l'ai dit en faute fois. Ah, yow ñi muy ngemm nii nag xanaa da nga yaakaar. est-ce que xam élection 2014 ñaata candidat la amoon. déedéet. ma commune onze huit listes dans la commune de Toubacouta man maa am bi am recette dans la dans le département de Foundiougne sama commune moo ëpp potentialité. Mhm. sama ëpp commune mooy ëpp na ñeneen candidat yu may xaar ñu ngi Dakar di organiser te egg seeguñ. ah la. waaw dama la wax. Toubacouta bi gën a rëy ci département bi. Mhm. Toubacouta moo ëpp mooy commune bi ëpp de Fatick. moom la ñëpp di soxla. am na ñëpp benn candidat. man sama commune combat la moi je suis le lion de Diambato c' est pas n'importe qui ma doon le lion. Mhm. dama exercer sama lépp en 2014 mais man demeewuma bannière APR je suis parti avec un liste indépendant deux listes ma am 10 900 voix dafa ñuy jël deuxième maa raw PDS raw coalition ànd defar Thior raw coalition te PDS parti la te man récépissé RP laa jël dem dem élection. am dix mille neuf cent voix am sept conseil départemental c'était parti seul daw ma liste APR élection au conseil man maat investir à niveau du Toubacouta jëlaat encore rapport bi bi ngay dégg ne le président APR di Foundiougne et Gossas moi. yaa ko dóor foofu maa ko dóor mu ne ma nag lan nga bëgg mën na ko def ma député ma gagné le bi mu def ma député ma gagné toutes les dix-sept seize communes. ah monsieur le maire yow daa mel ni kon daa am loo àndal de. man Lion laa je suis le Lion du département man Pape Sy Niang quoi je en toute voix dama ci rajo moi je dis pas ce maire là pour traîner des casseroles de gauche à droite non non je suis loin de ça moi je un fils du paysan et transporteur te loolu boo ñëwee ci nga may fekk. mbedd mu ma neex ma jaar dëkk bu ma neex jaama jaar ma daa commune. amoo sens interdit amoo problème suuf amoo problème détournement soo ñëwee tey fi ne nii sama commune ak sama cabinet tout le monde travaille toutes mes commissions c' est des commune j'ai un directeur de cabinet a bac plus sama deux sama premier vice-président c'est un président communautaire moo moo moo moo moo remplace sama il s'appelle Abdou man je n'ai pas droit à mm-hmm. moo tax résultat yi di feeñ fi ak léegi maire nekk looy garde ci saak yow kenn. Mm-hmm. Toubacouta tey c'est une commune boo xam ne tout le monde la bëgg. mais ko yàlla jagleel. looy wax opposition bi ñu dajaloo foofu wala opposition. Euh, am na fa am a beaucoup. élection yi passé Sonko moo jël deuxième avec mille deux cent voix. ah kon mi ngi jege si quoi. bu baax on est démocratie laa wax ni. Mhm. réew moo tëddee noonu. mais nit mun nga ut ba am li nga bëgg ci yar ak teggin. Mhm. maanaam boo yàkkamtee. non am nga ci droit chacun est libre de faire mhm. am yar ak teggin. man ñëw ma sama papa nekk président communauté rurale génn ma ñëw di saaga nit ñi pour am dara mu ñëw tegu ci yoon laaj li ma war a laaj. ñu jox ma ko ba respect am ko. ok te bu dee son excellence président Macky Sall am na doy exemple. qualité parti sorti dégg nga presse bi plateau yi gars defante bi mu dem ci àll bi. seen parti moom noonu la mel daa mel di xeex rek. non c' est que euh, démocratie moo avancé léegi. Ah, ba ñuy ba ñuy doorante bu baax. non mënu la ñàkk parce que c' est les ambitions yi la. da ngay bëgg sa morom bëgg. Mhm. ku ne am nga ci droit. arbitrage bi dina yomb. arbitrage bi nag borom kër gi moom du àttee xulo moom xanaa ngeen coupé ñante mais moom tant que yéen a ngi xulo day bàyyi mu paas. et puis patam noonu lay fonctionné noonu la bëgg mu fonctionné. sa morom duma. ok ku mën sa morom duma. amuleen kon donc tey ñuy dalal ki nga xam ni moom moo di le maire Pape Seydou jànkoo nekk bokk moomeel bu commune bu Toubacouta lii nag xam ngeen ni pàcc la woon rek ci waxtaan bi waaye port bi ñu ne ba léegi liggéey gi tàmbaleegul ñi nga xam ne ñoom ñoo de askan wi bëgg nañ ko mu ubbeeku ba ndaw ji mun ci am ay xëy mu le maire bi yàgg na de. Euh, dafa am lu tax. lu tax. su fekkee ne dew technicien. port bi fi ko gas dafa am argile. Hmm. Euh, ko gasee am le nombre de métage bi am argile lay daan c'est un problème technique. loolu wóor tey dañ fa gaaga bato. ba léegi gars yi ñu ngi koy déranger xam nga port hauteur am lu mu am 15 mètres de long wala maximum le 10 mètres parce que hélice yaa ngi ci suuf te port bu savisé dootul dem bateau bu savisé fa lay yem donc li nga xam ne problème yu technique la. technique yoo ko xam le président a beaucoup d' ambition pour le département de Foundiougne. il a fait beaucoup dans le département de Foundiougne tey rek le ministre de de mu koy wax en 2015 on est à 25 pour cent ñun amuñu woon yoon pour dem accéder dem Kaolack entre Sokone Kër Waly Ndiaye ça fait presque vingt huit kilomètres c'était la la bannière président defar na ko village yu bëri tey fi ni président mu ngi ndox village bëri mu ngi leen wax ne xalangu suuf ku ne da am mbébét wala ambition wax da nga boo joxe gannaaw ñu mottali. kon bu ñu yàkkamti. mais bu ñu yàkkamti génération bi yoro yor port bi suba yàlla bind na pare le président il nous a promis ne directeur du port il l'a nommé dans de Foundiougne. loolu yaakaar la suñu wax emploi des jeunes dama leen ne suñu wax emploi des jeunes ndaw yi am xam-xam mais borom doctorat borom maîtrise mënuñu fay nekk sa waay nga am benn bac carte sa ñoom taal nañ nga nommé un décret de nomination des jeunes intellectuels c'est bac cinq waaw yow nga carte sa université nga ñëw ñu arrangé la nga dem fonction publique nga nañ nga nommé français bu jub sa mënoo ko lekk mënoo bind lettre bu baax moi j'ai accepté mon analphabète j'ai fait mes études primaires j'ai fait mes études fa mu mën a yem laa yem bi ma dajee président Macky Sall dama ko ne le président ma ne ko da nga may yóbbu assemblée comme man doo ma nommé ma ma investir j'ai gagné le département à quatre ko. xam na ci dara ñaari élection si maa ma maa demal le lion du département. personne ne le conteste. mun nga ne ko nangam mais gars yi leen man parce que man dama yor électoral boo xam ne maa koy gagné deux mille ak tey. rajo lay wax ak yow. na solo. nit ñi nañ maire yi nañu dem liggéeyi. jege seen askan. te ba fi ne askan bi moom. nit dafa war a mhm. lu mu am même boo nekkee politicien da am métier. Mhm. transporteur nga. de biir. jeex na tàkk alors monsieur le maire ñu ngi la dégg yaa ngi vanté wu sànq euh, commune bu Toubacouta mbirum tourisme fu ngeen ci toll xëy na léegi askan wi ñu ngay commencé comprendre di dem ci wàllum tourisme bi kon mu ngay soqali gox bi suñ la mënee euh, suñ ko mënee. waxee waaw mu ngi dimbale parce que daaw xam nga président dafa déclaration ne kenn bu mu génn réew mi. ngeen di commencé am ay. nit yi ñëw foofu. te moo tax festival bi ma lay wax nii. Hmm. on gagne deux cent cinquante millions à trois cent millions par festival. parce que soo xoolee trois hôtels. ñu fees nga xool dix neuf campement ñu fees nga jël une cinquantaine de résidences ñu fees dans une semaine loolu xaalis sama xam nga du caaxaan sans compte restauration yi hébergement yi transport bi ñiy fóot seen taab war a liggéey jaay seen léjum donc retombé la tourisme dafay dundal dëkk pêche dafay dundal dëkk mbay dafay dundal dëkk sable dafay dundal dëkk te loolu ma la wax yëpp am na Toubacouta c'est pas hasard que la CNCA dem installé ci Toubacouta actuellement c'est le premier banque dans le te du ko rëccu. non jamais c'est pas normal que sappo bi ak sappo bi ñu keree ko Toubacouta déggoon nga accident bi amoon. Mhm. naufrage bu Bettenty bi. Mhm. déggoon nga crash avion bi. parce que ñu sommes en face océan Atlantique kon ñun dafa baax ñun commune yi commune moo tabax euh, moo tabax sapeurs-pompiers bi fonds propres mairie bi bëgg na marché bi ñu indi j'ai mis deux millions soixante cantines. man wax sama papa moo ko tabax en tant que président communauté def fa huit kanti ak kànga moo ñu def hangar def ay kanti bien bétonné avec des portefeuilles soo ñëwee tubaab da nga ko gis donc man waxuma pour Pape Niango damay vanté wu ci li may def damay wax solo ko samay résultats. Mm-hmm. quand j'étais parti en 2009 ma am huit listes. Mm-hmm. sama résultat moo ma fal huit listes sur les trente trois bureaux de vote ma gagné vingt neuf yi kon man sama bilan moo ma falaat. bilan mooy fal maire. Mhm. nit ñi dañu am confiance wóolu la nga may leen jàmm. waxuma mhm. nag li def ci social. <laughs> loolu xaju ci émission bi. alors euh, mënuñu jeexal itam te duñu wax euh, sa casquette transporteur. monsieur le maire yaa ngi dégg accident yi bëri na. nan la ñu mën a def ngir wàññi ko tey euh, ñu ngi dem ci surtout ci nawet. Mhm. naka la ñu war a def ak comportement chauffeur yi itam yéen ñi nga xam ni yaa ngi woon ci biir. ndax lañu ñu war a def kii ngir wàññi mbir mi. ba léegi maa ngi ci biir parce que maa ngi dawal sama bopp actuellement maa ngi maa ngi fi aller retour Toubacouta à Dakar. Mhm. parce que métier boo xam dama ko bëgg. Euh, métier la boo xam ne aw ma leneen mhm. damay ñaan xale yi ñu def ndànk mais xam nga lu yor doon ba xew léegi. Mhm. accident mënul ñàkk. mooy man transport irrégulier bi am. ay wax gaynde gaynde ku ko wax. bu la wàccul fu mu la yóbbu àllaaxira du mm-hmm. mm-hmm. dégg tur bi. Mm-hmm. wax gaynde soo waxee gaynde bu la wàccul fu mu la jëme bu la daanee lekk la état bi al faut mu jël ay dispositions. luñ bugg bugg bugg création d'emploi réew yoon moo koy doxal. Ah, jakarta yi daw biir Dakar léegi nag. yaa ko waxal sa bopp mosul am fenn en tant que bu toll nii Dakar tu mille motos dans dans le ñu njëkkante oto yi di bëkkante c'est n'importe quoi loolu responsabilité état la état moo ko yor sécurité nit ñi ñun ci bokk ci lañ bokk mais état moo war a veillewaat ci sécurité nit ci régime lañ nekk mais du ñu tee ñu wax ko. xale yi nit ñi yore oto yi nit ñi conduire dara baaxu ci. gis nit dafay responsable te bakkan du caaxaan. parce que bakkan boo gis mu ne ci tali bi am na juróomi wékku ci ginnaaw muy sa papa sa yaay. sa jabar ak sa doom le minimum mais kon yow boo yoree valant war nga xam ne responsabilité la hmm. ndox mënul ñàkk même dans les grandes puissances autoroutes yëpp da ngay gis koo xam ne dafay dal daanu autoroute bii tey ñoo ci daanu. Hmm. te accident moo teel. man damay yor sama oto je roule à cent vingt oto romb mu te ma xam lu muy daw il roule à cent soixante si tu roules à cent soixante pneu boo xam ne c'est une pneumatique day taxaw France. Hmm. gaare ci nees bi deux cent nga teg ko ci goudron bu tàng bi. Hmm. mais day éclaté. ñu xoolaat doxali avec cent soixante mënoo mënoo maîtriser oto. soo problème mbéw ak loo doon doon conducteur bu la fekk nangam léegi avec les portables là. te conduire avec te ci jàpp ñaar. Hmm. moi j'ai un su may conduire du ma téye sama téléphone. chauffeur bu daal doo jël téléphone. oto da ci ciy concentré. Hmm. volant da nga ciy concentré. parce loo xam ne mën na sànq sa bakkan soo koy yoree waxuloo ci foofu. en tout cas maa ngi ñaanal encore de passage. xale yi ak chauffeur a góorgóorlu te fonk seen serveur métier la. Mhm. nit bu ko yoree dafa xam da ci sutura da ci tedd da ci teele. Mhm. la nga yoroon da ci tedd di ko teral boo koy bu ko def fowukaay. naufrage bétanti bi mënuñu def émission bi te ñu si tey euh, njiitu réew mi am na lu mu fa diggee woon ndax lépp matale na ko ginnaaw ba jéyee bi amee ba tey di wéy di jaalee ñi nga xam ne ñoo seen famille yi ndax tey euh, la mu fa diggee woon yëpp matale na ko. maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm suy ñëw bi dindi yàlla ak mën a tax bi naufrage bi amee. ministre Omar Gueye moo ministre de la mhm. mu yebal si ko mu ñëw mu jox ko dix millions ak dix tonnes ci guddi ga mu jël téléphone am jaale ma en tant que ma ñaan ko ne ko su ma sañoon. ma mhm. ñëw jaale parce que li am ci sa région la am te vingt deux personnes yu tëdd. Mhm. doon ay jigéen doon sàkku lu ñu yóbbu seen kër. metti na te booy ñëw loo leen mën a dimbale nga àndaale xaalis pour gën leen jàppale. temps ba muy ñëw mu àndaale cent millions. ñëw may mosquée bi cent mille dix millions. Mhm. mosquée bi dañu ñu yeggali ko parce que mosquée la woon mosquée bu mag. Mhm. daal di cotisé woon nañ ba mu tëlee. Mhm. ñu karole ko yeggali ko fii nii keroog ci mosquée boobu yi nga xam ne dañ fa nekkoon seen waajur gaañ. mu nekk ay rescapé mu jël leen comme ay pupilles de la nation. chaque trimestre ñu fay leen kenn ku ne cinquante mille. xale bi ci gën a mag ren la def université. kon promesse bi moo xam def na ko. lenn moo ci desoon. mooy ériger Bédinté en commune. Mhm. te projet bi mu ngi en cours. Mhm. te am ngeen ci yaakaar. foofu laa ko ñaane woon du am yaakaar dafay mën a nekk. parce man waxtaan naa ci ak ministre man maa jël dossier boobu ci ministre bi. Mhm. def enquête technique lépp conseil def nañ délibération. donc toutes ces promesses yu ma waxoon à Bédinté il l'a fait. communalisation moo jël pour mu signer leen décret. te bu soobee yàlla dana am incha allah rabi avant les élections locales. monsieur émission bi jeex na ñu ngi lay sant di la gërëm di la jox dernier mot bi rek ñu bàyyi la nga tàggatu euh, tàggatu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di askanu euh, Bettenty euh, askanu Toubacouta ñoom ñëpp émission bi daanaka jeex na li ñu cërale woon ci waxtu jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo. may sant waa Toubacouta bu baax di leen gërëm Toubacouta village depuis 2009 mosuma ko perte. maa koy gagné moo tax c'est un village que j'ai beaucoup fait. ma leen sant leen gërëm di ñaan waa ñoo mbaatu yëpp hmm. di ñaan département fu ñu yal na ci yàlla def jàmm defal ñu ci jàmm ñi nga xam dañu ànd ñëpp di politique yal nañu yàlla jàppale bañ jàppale waat président ba fi mu a jëmale réew mu yegg hmm. parce que nag loolu sama hmm. maa ngi sant képp ku ak koo mun a doon maa ngi lay sant di la gërëm parce que li ma doon tey ñoom la waaye maa ngi sant nag sama waa kër Serigne waa kër El Hadj Dem bi nga xam ne Sokone la fa la di nuyu suñu xalif général El Hadj Cheikh Omar Deme ak képp ku sant Deme di doom El Hadj Amad di sët maa ngi lay nuyu di la ziar mhm. maa ngi sant tamit le ministre de la République muy Abdou Latif mhm. bi nga xam tamit c'est le secrétaire général du gouvernement mhm. ak toutes les responsables politiques les maires président conseil départemental ak les jeunes ñëpp maa ngi lay nuyu di sant ñëpp di gërëm ñëpp parce que bu nekkee député nag ñëpp participer nañ ci jërëjëf euh, le maire Pape Seydou Dianko moom la ñu dalaloon ni ci émission gox bi xalaa di leen jox dig daje beneen dimanche ak beneen invité ci rajo Rewmi FM jërë ngeen jëf di sant ki nga xam ni moom moo di Adama Diallo moom mi nga xam ni moom moo nekkoon ci xarala gi.